Iker Casillas mu dugg ci caay ci bu Courtois ba mu génnee la mu génnaale moom lañ leen di indil ci xibaar yi gars yi maa ngi leen di ziar sàkku ci yéen abonnement yi beneen bi ñu diglu sponsor bi te duggaat yàggal xibaar yi. waaw sëñ Alaaji Malick xam nga li ci doy waar mooy gis nga butéel bii nii muy ndawee nga di ko xeeb ki koy jën di ko xeeb mën naa defee moom lu mat 4 mois ndax lu ndaw rek nga ci utilisé gàncax lañ ko liggéeyee dañ ko garanti amul benn effet secondaire 35 jàpp 45 minutes lay diire. képp ku ko jënd sa kër dana neex jàmm ak la dana fa am kër moom alal doo nga yoru ko soxna alal doo nga ko lu ñu garanti la lu wér la lu noppale la gannaaw yëgle boobee ñu commencé xibaar yi ak Iker Casillas mi nga xam ni tey jii nag dafa yebbi ay kaddu euh, kaddu yooyu nag ñu tasaare ko ca Espagne man Iker Casillas jàpp naa ni euh, kii di Thibaut Courtois dana ñëw ngir récupérer euh, maanaam li leen di waaye nag amul benn sens nit ñi di wane ni Thibaut Courtois war na mën a góol wala mooy meilleur góol du monde déedéet loolee yaakaar naa ni mi ngi ci gannaawam ndax Thibaut Courtois képp ku ko xam-xam ne mooy meilleur gardien euh, du monde actuellement André Lunin nag moom euh, wane na ni wax dëgg yàlla équipe bi di Real war naa mën a compter ci moom am na ci moom confiance bu baax a baax moom moomee nga xam ne sax jàpp na ni moom mii di Iker Casillas di euh, mooy nekk ca final ba góolu moom kii di André Lunin ñaanal ko jàmm final boobee ca Londres wala boog fële yàlla defal ko ci bi Carlo Ancelotti ci euh, conférence de presse bi nga xam ne doon na ko jàkkaarloo gone yi la mu xam la nag moom mi di Carlo Ancelotti ci bo Courtois daanaka xibaar Courtois dañ ci saf sap moom Courtois euh, fële ca Wembley maanaam jàpp nañ ni bu fekkente ni démarré na mën naa rajaxe dëkk bi Real mën a amu final waaye nag du tee ki la nga xam ne mooy gardien bi gardien ti jëmi final bi di André Luye moom it yaakaar naa ni kumpa gi ba léegi mi ngi ci diggante euh, maanaam Carlo Ancelotti ak ñoom ñaar na waxagul kenn dara waaye li leer ba leer mooy match boobee dana am solo bu baax a baax te yaakaar naa ni match ba képp ku bëgg a fut seetaan football meilleur mën ngaa bàyyi xel le premier bii ñu dëgmal bu àndeeg dogal borom bi